tàccul leen ba xale yi baax a baax a baax a baax a baax baax baax jàppoon ne bu fi nekkee dañuy jàng aawoo am ba mais ñii jànguñ aawoo bu baax a baax a baax a baax il a baax a baax macha allah am solo moo xam ne man yi ay 1 2 3 yaakaar naa léegi ma di am fu problème les couleurs moo ma ci dara mais xale yi macha allah ku leen gis xam ne seen maîtresse yi dañ leen di taxaw te aussi ñu ngi leen di jàngale te ñu ngi yee seen xel parce que doomu aadama xel la am yàlla bi wax ci alquran yaa ulil albab la fattaqullaha yaa ulil albab yaa ulil albab laallakum tatazakkarun laallakum tatazakkarun mooy xanaa doo réfléchir laallakum tatafakkarun mooy xanaa doo xalaat kon xel yooyu xale yi yor nga xam ne moom la ñuy màggee te doo yàlla moom la gën a soxla ci nit bu xel moomu dañuy ci yow dootu la teg dara ñoom ñi ngi nàmm xelu xale yi di leen xamal ay li war ci ñoom ñi ngi koy def ci ñoom kon yal na yàlla def leen mag def leen magul islam barkeel leen. ak sa yaay ñëw na. ak sa kay bisimilah soxna Todas. Levanta. baax a na yàlla def la mag def la magu lislaam yal na yàlla barkeel la say waa eh, wax toppatoo leen ma xale bi du noppi ba pare kii nii waaw dañ koo gaañ waaw noppi ci liggéey bi la bokk ñu ngi woo élève bi ñu wax Mouhamed Cissé doomu Dame Cissé ak aji ñam aji jeng ah ha jili waaw mohammed sisi anabu mohammed ayna mohammed mohammed ana mohammed tàccul leen ko tàccul leen ko xànnal leen ko aina aina aina aina aina aina aina huwa aina ayna tàccul leen ko tàccul ko tàccul ko Muhammad, Muhammad ana Muhammad. أنا محمد Takillerko takillerko doyna sik da fawgut Papa Papa Demba Baba Baba Baba Demba Baba Baba Ana Baba ba tàccu leen baaba bu baax a baax a baax a baax tàccu leen ko bismillah baaba yow baaba daf leen ñëw nga en forme baaba ah. xanaa nekk tàccule ma ñaari xale yu baax def ngeen ne am na ah. looy ñaanal sa papa sa papa loo koy ñaanal sa papa loo koy bu dem màkk sa papa am na ñaare sa yaay ñaare ah tàccu leen ma ko bu baax a baax a aaw na ci tàccu kii aaw na ci tàccu kuy na ci tàcc na na ci tàcc na ci tàcc ah ñaareelu waaw kay Dakar kat dama yaakaar ne dama leen ma xale bu baax yal na yàlla def leen mag def leen mag lislaam yal na yàlla defal leen barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi woo élève bi ñu wax Moussa Ndiaye doom ci Ndeye Guèye Mouhamed Mohamed Sy doom ci Fatimatu Ñang Mohamed ana Mohamed Mohamed ana Mohamed tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu leen ko tàccu tàccu tàccu tàccu tàccu tàccu tàccu leen ko tàccu leen ko xamal leen ko ay na ay na ay na hiya doy na sëkk dafay guddi ah conférence bi dafa mel ni mu ngi door a tàmbali parce que boo yi ma gis nii dafa mel ni dañuy ñëwee en forme de ah. mbokk ci lislaam lañ fi wax ba pare ne juróom la expliqué ñu juróom yëpp ba pare ne bu ko def boo ba ci aj màkk nag moom boo ko mënee nga def ko waaye benn yoon xanaa boobu ne jaamu yàlla yëpp ñaar doomu nga si taxoo ñaar ñaar doomu ngay taxoo ci jaamu yàlla yi nga xam ne annuel bi chaque jour da koy répété li ci des yëpp at mi benn bu ne un fois waaw benn yoon waaw gis nga gëm yàlla ak gëm yonent boobu moom foo toll moo tax gars yi di nodd di liqaam moo tax ñu nodd di liqaam bi moo tax fu ñu noddee di liqaamee yonent bi si jugee julli ñaar yi doog ngay def foo toll mensuellement année bi nga koy def foo toll foo toll at mi nag bu bu ñëwee benn yoon boo amee xaalis asaka ci at mi benn yoon dégg nga maam dégg eh damaa bëgg ngeen déglu ma damay wax de eh booy déglu leen wala noppi ngeen wax. gis nga jaamu yàlla li ñuy rëy rëy rëy juróom moo ko tënk juróomi li ñuy rëy rëy ñaari ngay def at mi foo toll mooy gëm yàlla gëm yonent mu bu ñuy noddi bu la fekkee ci kër ngay góor ngay jigéen da ngaa war a noppi bu ñuy nodd nga ànd ak kuy nodd beesal sa gëm yàlla. bu ñuy liqaam nga ñëw taxaw bu ñuy liqaam nga wax li ñuy liqaam beesal sa gëm yàlla. booy julli nga taxaw li xaar beesal sa gëm yàlla yéen tamit wax jaddidoo imaanakum na ngeen beesal seen gëm yàlla moo tax nottam li xaar pour beesal gëm yàlla la boo paree julli juróomi yoon la ci bis bi machinement chaque jour danga koy def bu benn manqué yi nga mos a def yëpp yàqu la gis nga benn julli boo ko ratee te tay ko yi nga mos a def yëpp yàqu la lu dul nag koy dem baamuwaat wala nga fay bi ci des mooy boo amee xaalis at mi benn yoon ngay joxe asaka commencé liggéeyaat di dajale lislaam may la bu dee ren na nga am 10 millions joxe asaka nga joxe asaka bu déwénee boo liggéey ni nga am 20 millions nga joxewaat asaka beneen at mi boo ñëwee ni nga am 30 millions joxe asaka beneen bi mooy woor weeru koor li muy réy réy réy ak li ko faalee nekk jangeen ñi ragal yëpp yëpp yëpp moom weeru koor benn yoon lay ñëw ci at yi te at mi weer la ci doon dañ koy baam bu paree jeex na beneen bi ci des mooy bii ñuy waaj a dem mooy Màkka xale yi jàngal ñu ko léegi xale yi nee nañu boo bëggee dem Màkka benn yoon la war ci jullit bi benn yoon boo ko amee ba dem fa jeex na doo demaat Màkka boo demee Màkka naafile la waaye dem Màkka benn yoon la kon xale yi tàccul na leen leen bu baax a baax a baax a baax a baax waxuñ fi waxi gone luñ fi jàng ñu lislaam la te yal na yàlla fay leen def leen mag def leen magu lislaam te defal leen barke ci barke yonent bi seen waa yi ñoo leen di indi neexal yu am solo yàlla fayante ak ñoom yiw ci barke yonent bi macha allah ndànk rek bisimilah waaw damay jàngale tubaab bisimilah waaw. ayca ñu ngi wax élève bi ñu wax Moussa Kase ak doom ci Mor Abdul Aziz Ture Pak Abdul Karim Abuka anak Abuka Abuka anak Abdul Kana kan ku sama mam lawan Abdul kan Aina Abdul kan kan ba Abdul kan domo Masale gise ak Mor kan Abdul Aziz Touré anamu ñëw na doom ci maam Diarra ak Fodé Touré Abdoul Aziz ah El Hadj Abdou ñëwal waay wala da ngaa bëgg ma woyal la El Hadj Abdou ñëwal. Allahumma salli wa sallim ala نبي أتى بالهدى والكرم وأهلا اللهم صلِّ سلم على نبي أتى بالهدى والكرم أتى بسم الله يا ابن مور إندي يا ابن جهنك إندي أتى السلام عليكم الله عليه وسلم لواء الابن لواء محمد سي دام سيف سي سيف أك قاسم سيف أك ماما أه ماما بريم أنا نيغو خلا نيغو أبو جاي doom ci Ndeye Gueye ak Cheikh Gueye Cheikh Gueye ana ñu Muhammad ana Muhammad tàccul leen ko tàccul leen ko tàccul leen ko tàccul leen ko tàccul leen ko àllal leen ko am na ay na ay na ay na ay na day na sëkk leen ndànk nag conférence bi tàmbalee gudde léegi ma ñëw ci aaw yi ak ñaareel yi xool ci baas yi ba xam ma xool ba xam ñu ñu ba xam wa wa escat urbain ñoom ñu tàcc leen ma xale yi bu baax a baax xale yi nag damaa bëgg aaw yi ba ñu tàccul ma leen. kuy aawa na ci tàccu kuy aawa na ci tàccu kuy ñaareel na ci maandu na ci maandu ana aaw yi tàcc leen xale yi bu baax a baax a baax ah waa Grand li may gisee bas bi waa Grand Yoff am na ay am na ay am na ay jàmbaar xam naa ne am na ñu fi takk ñaareel mu ne yow ñaar soxna nga yaa ngi ci deuxième femme. merci yow bëgg naa ci yow. dinaa xam ñaareel yi fu mu feree après ña aaw ah yi nañ tàcc bu baax a baax a baax tàcc ba xale yi parce que nee nañ képp koo xam ne dangaa gëm yàlla gëm yonent bi bul lor sa dëkkandoo li am ci réew mi yëpp lor ay dëkkandoo rek a tax li am ci réew mi yëpp am yal nañ ci yàlla musal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam acca dal leen seen parents léegi dañoo bëgg nag defaat beneen activité activité moyenne section arabe petite section arabe. tuuru naa 我。 네, 네, 지금, 네. 아베 이거 볼게요. tàcc leen ma xale yi bu baax a baax a baax baax baax a baax a baax waaw ah, góor yal na yàlla dolli barke ak sutura ah seen waajur ñoo nañ ci indi fi neexal yu am solo jox ko daara ji yal na yàlla fayante ñoom yiw xale yi jàng nañ fi hadis bu am solo nee nañ an nazafatu min al iman set dafa bokk ci gëm yàlla nga gëm yàlla li ko composé yëpp e eh, boye eh, wax nañ seen xale istami'u am na benn boy boo xam ne fii laa ñëw rek mais xam ne naa ki koy sonn mbësi xaw ma ku ko yor waaye ki ko si daara ji sonn mbësi lu ñu waaw kooku ngay laal la ki si suuf de ki sa ginnaaw li si ginnaaw lii loolu waaw loolu loolu waaw mi ngi noonu kooku ñoom ñaar ñooñu booy mu ngi indil fii rek eh eh xale yi déglu leen yéen laay waaye yéen yéen laay waaye laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah muhammad rasulullah عليه سلام الله لا إله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه léegi nag xool leen yéen ñëpp na ngeen noppi wala ma teg micro bi ñibbi ah ma dem ñibbi aca kon noppi leen noppi leen wala ma noppi ñibbi def leen ci benn da ngeen di noppi ayca tàcc leen seen bopp ngeen noppee tàcc leen seen bopp bu baax c'est bien élève bu ci gën a mën a noppi rek moo ci gën a yaru ayca yéen hadis bi ngeen tari am na solo yal yàlla defal leen ngeen ay mag damaa bëgg nag kuy ñaareel nag tàcc leen barkeelu ci kuy ñaareel na ci tàccu kuy ñaareel na ci maan ana ñaareel ñaareel tàcc leen ma xale yi bu baax a baax Hadi gel. Yalla yalla yürüm va kel va yalla yalla yürüm va iskan irbam. Iskan irbam benn ñaari lam benn. benn ñaari man am naa ñaar. benn ñaareel maam iskan yalla yalla yërëm leen. allahumma ighfir lahum warham. ñi nga wax élève bi ñu ngi woo élève bu ñuy wax Saliou Thioub Serigne Saliou Thioub anamu Cheikh Saliou Mbacké ah tàccul leen ma bu baax a baax a baax a baax leen Serigne Saliou sëñ Saliou Asa yaay ñëw na ah leen sëñ Saliou bu baax kii dul ma turam doom ah macha allah bravo. nañu benn hadis boo xam ne nee na yéen jullit ñi yonent bi bëgg mu leer du leer da ngay tooñ waaye waaye jox leen seen bouteille yi ñu lekk waaw bouteille ay ah. waaw bu ñuy dem yawmal qiyaam dañuy soxla leer pour dugg aljanna bu dee da ngay tooñ nag boo demee affaire du leer léegi nag dañu bëgg a jox mu diiru école bi mu diir lañu jox mu diir lañ bëgg a jox mooy yow mi toog sama wet nga xool école bi walla ñu jox Mouhamadou Amine Niang daara ji moom moo nekk ak sëriñ si mu wax programme daara ji ni muy doxee ak ku bëgg sa doom jàng ci ndaw ñi nga xam ne ñoo commencé loolu yaakaar naa ñetti at ba ba juróom benn kon day yokk Mouhamadul Amin rek mu leeral loolu incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah déglu leen imam imam Mouhamadul Amin Niang moom ñaar déglu leen déglu leen eh, ñëpp déglu xale yi ku si sama xarit rek mooy déglu xool leen imam Mouhamadul Amin Niang mii di wax ñaari soxna la yor da ko ñëpp déglu ku ñaari soxla buy wax ñëpp di déglu ko mu waxal leen programme daara ji ni muy demee ak ku bëgg sa doom ñëw jàngi fii ñu yoreel la bu dee dafa bëgg doon euh, demi passion wala interne wala externe incha allah bismillah imam Mouhamadul Amin. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi delluwaat di leen nuyu di leen ziyaarawaat di am mbégte ci dagg seen yitte yi ñëw ànd ak ñun ci bis bi am nañ ci mbégte ak kontaante bu baax a baax. le temps que ñu mooy xale yi ñu jël seen goûter. xam xale lañ heure lekk bu jotee moom dañ koy def rek ñu sànni ci ay kàddu eh, kàddu yi nag yi ci jiitu mooy comme niñ ko ubbee woon rek si suba mooy sant parents bu baax a baax sant gi mooy ci kóolute gi li sa daara ba mu rafet nga ubbi ko amoo ku la jox élève bu boobaa sa liggéey dina des kon qualité googu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax comme ni ko oustaz Faha waxee daara ji dafa ay parti yu bëree bëree bëri bi ci gën a suufe mooy bi ñu nekk nii mooy jardin d'enfant bi nga xam ne ñu ngi tàmbalee ci ñu am ñetti at ba jëm juróom-benni at muy bi mooy premier parti bi mu am beneen parti boo xam ne nii franco arabe la moo ñi nga xam ne am nañ juróom-benni at jëm kaw foofu tam am na bu dee préscolaire bi am na ñetti classe muy petite section ak grande section ak moyenne section ak grand section mooy préscolaire bi mu am beneen parti boo xam ne nii moo ñoo ci topp mooy franco arabe bi. franco arabe bi moom am na CI ba CM2 macha allah daara ji ñu ngi xalaat incha allahu taala nan la ñuy defee ba am CM incha allah muy moyen ci at bii di ñëw incha allahu taala bu ko yàlla dogalee. loolu mooy li jëm ci wàllu franco arabe bi bu dee xale yi ndaw yi comme ni ko Sadio waxee sànq. ñoom dañoo boole jàng ñaar dañoo boole ñaar la ñuy boole mooy.

ñi njëkk a sol ci xale yi alquran seen dënn yi jàngal leen déglu déglu la leen di njëkk a jàngal parce que ñoom mën na ko ñu xàmmee da ñëw di leen wax ñoom ñii répété soo ko defee da nga leen jàngal déglu en même temps nga jàngalaa leen wax surtout ci petite section bi bu ñu demee ba ci moyenne ak grande ci la ñuy gën a dugal nag activité yi xam ne ay français la ñuy doon nga xam ne xale bi bu génnee mën a def sëy yi du am benn problème ci wàllu écriture en même temps dina am quelques mots yoo xam ne dina ko jàng loolu mooy jardin d'enfant bi ni mu ko waxee am na jardin d'enfant bi dafa am ñaar am na externe nga xam ne danga ngay xëy bu wàcc jotee nga dem ñibbi après ngoon gi nga gontaat wala gisee jardin d'enfant yu bëri dañ am gont mais fii comme ñaari matier ngay jàng muy lan arabe ak français so jëlé sama gi rek li nga bëgg doo ko am moo tax ñii gont loolu la su ko defé ñooñu amna na da ngay xey ñew suwa bu ngone nga nga wacc dem ñibi bu ngone nga ñëw gontaat en même temps amna yendu nga xam da ngay xey suwa yendu ba ngone su ko defé amna ñu fi dess di len toppatoo ci seen walu nek ak seen walu euh, euh, garder ak ñom seen yoy bu dee euh, préscolaire bi ñaar yoy rek la am am na ay xale yu ndaw lañ en même temps ci franco arabe bi noonu la moom tam comme wax naa leen ko sànq am na CI ba CM2 ñoom tam am na externat am na demi passion mu des nag euh, daara ji nga xam ne mooy daara ju mag bi moo moom moo jur préscolaire bi moom moo jur franco bi muy daara El Hadji Cheikh Niang ñooñu nga xam ne internat lañ def internat bi moo jur jardin bi moo jur franco arabe bi. déglu leen. foofu. ñi nga xamné am nañ juroom benn at ba ba ngay am fukki at ak ñaar so ñëw mën nga inscrire ci internat bi internat bi nak boko defé mom jang alquran rek ngay def ba mokal bo jangé alquran ba mokal ko ngay doora dem jangi leneen am na ñoo xam ne nañ ci euh, internat bi ba mokal alquran dañuy dugg directement ci franco arab bi té buñ fa duggé jang bu gaaw lañ fay jang au lieu li ñu waroon a jàng ci 6 ans CICP ba CM2 dañ ko waroon a jàng muy juróom-benni at ñi ci ëpp si ñetti at lañ koy jàng su dee ki nga xam ne xale bi xelam neexut moom mën na ko def 4 ans mais ñi nga xam ne jàng nañu alxuraan ba mokkal ko ñoom ñi ci gën a bëri buñu buñ CICP dañ koy boole C1 C2 ñu boole ko CM1 ñu boole ko ñi nga xam ne ñoo ci xaw na naqari xel. mën nañ boole CICP CE CE2 après def CM1 door def CM2 kon loolu mooy franco bi bu dee internat bu dee euh, internat bi nag moom. déglu leen ko mi ngi wax ci internat a ngi koy dégg ñëpp dégg. alxuraan yooyu noonu jàng franco arabe boobu nag internat la am na tim externat mooy ñiy wàcc di ñibbi nga xam ne ci koñ bi lañ dëkk ñoom tam alxuraan jàng si bëggee en même temps am na yenn yu tim bu dañuy xëy ba ngoon ba tey ñoom it alxuraan rek la jàng kon yooyu moo am ci daara ji euh, suñu waajur suñu kilifa alxaaji Cheikh ñaa banqaas bu ne dafa am ci loxo yu mu ko teg bu dee internat bi Seydina Omar Niang moo fa nekk bu dee franco bi ak préscolaire bi Mouhamadinil Mounir moo fa nekk kon ñoo leen di ñaanal yàlla yan bi yàlla yan leen yàlla oyofal ko Bye-bye. ci tàccu kuy ñaareel na ci maandu kuy aawa na ci tàccu kuy ñaareel na ci maandu na ci maandu maandu waaw waaw man fukki ñaar laa yor bu Pascal Mbengue dafa ci ña ah ñaareel ñaareel laa waaw góor say nu waajur ñoo ne ci liggéey bi neexal yu am solo jox ko oustaz yal na yàlla fay dañ ñoom yow ak yaa say daay yal na yàlla barkeel leen yow loo ñaanal sa yaay yow sa yaay loo koy ñaanal jangan bukan sama merasa itu kalau kau hati kalau dia ini saya mau kalau dia ini ku attaque leen ma jigéen ñi bu baax waay jàmbaar la kenn du ñoom boo ko ci yére yi ñoo ñëw ci taabal ñu ngay sarax man daal ah Sow doomu Aïssa Darame ak Kadjetu Ba doomu Selmatu Ba ak Makhtar Ba ah Aïssatou ah ana yaa Aïssa ah Aïssa ana Aïssa Aïssa ana moom tàccul leen ko tàccul leen ko tàccul leen ko ayna ayna ayna Ba hmm? ah, Kadjetu Ba

Sí. <laughs> tàcc leen ma xale yi bu baax a baax a baax a baax a baax tar taj tar taj tar taj raj taj raj taj raj taj raj taj raj taj raj raj taj raj raj raj taj macha allah xale yi saxoon na yaa xaana yéen da ngeen a jël seen goûter da ngeen a ndik wax leen waaw da ngeen a jël seen goûter waaw góor moo tax gis dañuy saxoon macha allah yàlla yàlla def leen ngeen mag def leen magu lislaam yàlla yàlla defal leen barke ci barke ci bi sallallahu alayhi wa sallam seen waajur ñooñu ci indi ay neexal yu am solo jox ko daara ji yàlla yàlla fay teg ngeen yëngu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li nga wax élève bu ñu wax Bunta Sall Sow Anta Sali Diop doomu Kadia Diop ak Faye Diop ah. ah d'accord merci. waaye vraiment merci Selbé Babou doomu maam ay na sant Anta Sall ñëw Selbé Selbé ay na ay na ay na hiya tàcc leen ko tàcc leen ko tàcc leen ko tàcc leen ko ba yéen aaw yi dañ ko moom moo ma ko te moom daa am ñaareel bu bees sas yooyu def ñaareel ñaareel nga rek ñu ko tàcc xaaral ma jàppale ñaareel yi tàcc leen ma ko bu baax a baax a baax yu'minu ñu gëm billaahi si yàlla wal yawmil aaxiri ak bés penc falaa yuzibuhum jaaraw dëkkandooram macha allah tàcc leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax tàcc leen ko macha allah yàlla yàlla def la mag def la magul islam say waajur noonu nañ fi jox ko ustaas yal na yàlla barkeel alquran ji te fay na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndànk rek waaw sa robe bu rafet bi bi mooy ci ban ci robe bi aya seda ah? bi mooy ban ci robe bi bi mooy tay moom waaw kay man xamu ci benn barkal li nga wax élève bi ñuy wax déet dañuy dañuy dem section arabe dañuy def seen activité kan mooy def activité. Eh, français. activité français. madame. nu mu tudd. Soxna Aïssatou Manga mooy def activité français nan section petite section. deuxième activité petite section li des si tari bi xale yi si des pour ñu tari bëri balaa deux heures rek incha ana ya Oumy Diouf Oumy Diouf jangan question sanitaire concernant les objets dangereux oui objets dangereux On a, on a ici. Maintenant, en classe, on a étudié la leçon sur les objets dangereux. Maintenant, j'aimerais que vous nous faites les objets dangereux. Objets dangereux, là, pour vous. Vous lu mu objet dangereux objet dangereux vous lan lan les.

dañ koy raxasee ak lan ak dañ koy fóote eau dañ koy raxasee douche kon eau kenn du ko boo ko naanee looy def dangay dangay boo naanee eau de javel dangay defal micro bi Mouhamed Gueye yi génnee ma benn objet dangereux ci objet yi nekk fii Mohamed Gueye loo génne nii li nga génn nu mu mooy observé observé lan lay def. dañ koy raxasee dañ koy raxasee douche observé boo ko ah Ablaye. ah. kenn du ko naanee. joxal micro am sa. génne ma benn objet dangereux. Alimatou Diallo li nga Il faut soulever ça. Soulève ça. ça ça. Comment tu Ciseaux. Ciseaux. Est-ce qu'on doit jouer avec le ciseau Non. Pourquoi on ne joue pas avec le ciseau que... Tu regardes ici. Parce que Ça va blesser les gens. Parce que ça blesse les gens. Est-ce qu'on va jouer avec le ciseau Le ciseau, on l'utilise pour faire quoi Mais tu l'utiliser pour la... Pour ciseau lan lañ koy defee. ciseau lan lañ koy defee. day yaake kay. ah. day yaake kay. moom la ñuy daggee ak lan. ak ay yére. ak yére moom la ñuy daggee ak lan. est-ce que dañuy fooye ak ciseau. lu que day daggee sa loxo. day daggee loxo. très bien am satu tàccu tàccu leen tàccu leen am ay dara tellement sotti yow ndox c'est dangereux ah. li nga génn nu mu tudd li nga génn nu mu tudd. lam est-ce que lamsa dañ koy fooyee. lu tax moom la ñuy moom lañuy ñuy daggee karaw donc lamset moom la jël ñuy wot est-ce que lamset mën nga ko jël nga dagg sa loxo yi boo ko daggee sa loxo lan lay def lamset dañ ciy fooye du ñu fooye ci lamset joxal micro bi Adama Badiaga Adama Badiaga génnee ma benn objet dangereux Adama Badiaga li nga yore nu mu paaka. paaka. paaka objet dangereux la wala. objet dangereux la. lu nga ne paaka c'est un objet dangereux. parce que day dagge. parce que day dagge donc waruñu fooy ak paaka. fooy ak paaka. déedéet. lu tax doo fooy ak paaka. parce que day gaañe. parce que day gaañee donc les objets dangereux mooy objet yi nga xam ne lan lay def. da lay gaañ. les objets dangereux lan la ñuy def. da lay gaañ. da lay gaañ ak lan. basi. ak ak ciseau. parce que tamit day gaañ est-ce qu'on va jouer avec les objets dangereux. déedéet. war nañu ko ak ay objets. dangereux. Mama. Maintenant on va faire les jours de la semaine, les sept jours de la semaine. Allez, vas-y c'est Pourquoi lundi Parce qu'après l'école, hmm. je regarde la télé. Comment tu regardes la télé après l'école Je regarde la télé. Très bien. Ton jour préféré, c'est lundi parce que après l'école, tu regardes la télé. Et toi, ton jour préféré, c'est quoi Ton jour préféré, c'est mardi. Pourquoi mardi Parce que l'école, je regarde parce que après l'école, je mange le. Tu donnes à mercredi. Pourquoi mercredi Parce que après. Euh, hum. je joue au football. Comment tu joues au football Je joue au football. Je joue au football. Très bien. Ton jour préféré, c'est le mercredi parce que après l'école, tu joues au football. Et toi, quel est ton jour préféré? Mon jour préféré, jeudi. Pourquoi jeudi? Parce qu'après l'école, mhm. je mange la Comment tu manges la crème glacée? Je mange la crème glacée. Très bien, parce qu'après l'école, je mange la crème elle donne à vendredi. vendredi. Pourquoi vendredi? Comment tu fais la sieste? Tu fais la sieste comment? Je fais la. Fais, le geste. Je fais la. Comment tu fais la sieste? Fais la sieste. ton jour préféré, le samedi, vas-y. Il faut parler fort, tu parles fort, vas-y. Tu parles fort. Pourquoi samedi Parce que samedi, il n'y a pas d'école. Donc, ton jour préféré, c'est samedi. Parce que samedi, il n'y a pas d'école. Elle est Et le dimanche des Vas-y. Pourquoi le dimanche Parce que le dimanche, je vais me promener avec papa et maman. Comment tu promènes avec papa et maman Tu fais comment Quand tu promènes avec papa et maman, tu fais comment donc, le, dimanche, tu vas te promener avec papa et... Donc, les sept jours de la semaine sont... allez Les sept jours de la semaine sont... Les sept jours de la semaine sont... Lundi, mardi, mercredi, jeudi. yoon you nañu wàcc